waa wajaxal kalaami rachidan wa murshida wa fikirati nawir wa xalbi arshida bàkk borom Touba jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéen topp seen chaîne tubaa Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñi ngi am mbégte tey di dikk yow ci waxtaan boo xam si waxtaan wu am solo ñu seqoog suñu mbokk taalibe suñu jëwrin xam naa danañ dikk ak moom koo xam si wax dëgg yàlla ci bari dañ koy topp ci yoonu murit loolu ci yoon Baye Fall muy bind ay téere ci làkk bu wolof waaye tamit di yëngu lu baax ci ci wàllum Euh, daara ji rek ci école nasaraan si nekk professeur d'anglais nekk tamit koo xam si xëy mën nañ ko jàppee philosophe ci wàllum Baye Fall ak orthodoxie Baye Fall moo xam nag si daanaka lu mat fukki at ak ñaara ñi wala sax daanaka euh, média yi ju bëree bëri xëy na doon nañ ko sàkk ci moom waaye mënuñu koo am kon nag tey bu seen seen télé télévision Touba Vision ñoo ànd ak am jëmm joo nga xam moom la fas yéenee waxtaanal xam naa day nekk woo xam si wax dëgg yàlla ab euh, liggéey la boo xam Touba Vision da def mbokk mbokk taal bi nga xam si ñoom ñoo koy topp fii ci biir réew mi ak bitim réew a bégal waaye tamit war na ànd ak ñoom ci lépp nekk na seen seen bëgg-bëgg jëmm jooju ñu bëgg waxtaanal tey ji nag mu féete euh, na ci wàllum euh, ci ci ci Baye Fall mën na jëwriñ la ci euh, kenn koo xam si day bind ci ay téere ci wàllum wolof mu génne téere bu am solo tuddee ko xelum xalam xelum xalam mu nekk téere boo xam si ci biir waxtaan bi dañ ko gën a leeral continue bi li ci nekk lépp lépp bisimilah inna waliyallah barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall suñ Bàmba noo ngi lay siyaar di siyaar ñu ñuy teewlu ñëpp di ko tàmbalee ci sunu kilifa kilifa ak yoonu murit Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér noonu ñu jël sunub siyaar di ko teg ci loxo buntam muy ki fi toogal sunu maam Cheikh Ibrahima Fall taw doon ko mate ko sëkk muy seeni Cheikh Jëmb Fall di siyaarit sunu bunt ci kër gi Cheikh Ndigal mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall la maa ngi nuy képp ku ñuy teewlu eh, di sant ci jotaay bi ni nga ko waxee noonu la ame man daanaka sawaruma ci feeñ ndax damay bind dama naan li may bind bu ko benn nit jotee sax mat na waaw euh, du sama jëmm ji mooy soxal nit ñi waaye xëy na kàddu gu ma mën a génne mën a jariñ nit ki waaw jërëjëf sëñ Bamba laaj ba moom dinaa ci sawar a tontu ndax la dëxëñu ci biir xelum xalam moo bari xelum xalam xam nga sëriñ Mor Kayre dama ko dama koy teewlu man donte eh, wàllu mbind laay gëstu fii anglais littérature et civilisation africaine ci laa amee sama master 2 en 2009. digganteeg sëñ eh, Baye Ndiaga Diop di ñaan suñu borom ak ay leeram xëy na leeral nga lu bëree bëri ti ci bàyyi Fall xëy na moom ba muy dund dundam gépp mën naa ne à travers ces ces ces ces conférences ak ay expos doon def yooyu yëpp mën naa ni l'orthodoxie Baye Fall la doon wane ñu bëgg xam sa relation ak moom waaye lamp laataa nga ñëw loolu wolof gi daal maanaam dégg bi day wanewaat leneen sunug yaras xam nga yaras ndax boo nampee aw làkk nu toog di la laaj lu tax noo ko déggee. xam nga c'est un peu absurde waaye bu ma daan ñibbisi sama maam bis ma ñëw mu ne ma dangaa demoon université yow de dégg naa yaa nga foofu mu ne ma waaw man ma ne ko waaw mu ne ma ndax mën nga maa wax foo xam-xam yam lamp gannaaw ba nga leer leerlee ci laaj ak tontu yi nga xam si jot nañ ko seq ak yow ñu ñëw nag focaliser ci aspect littéraire texte bi ci ni ngay bindee maanaam euh, xëy na ni comme nit moom day ñëw rek bind xëy na waaye yow fi ngay bind daam lu ci bare bari lay explique fi nga koy sukkandikoo tey poème bi Barke Baye mu nekk euh, boo xoolee ay ay ay kii daal ay ay strophe trois vers peut-être saa yoo xam ne ay da ngay jël quatrain mm, yooyu daal ñu bëgg a xam yow ban ban ak ban rythme ngay ëpp li ngay li ngay bindee. man bu may bind lu ci bëri damay téye xiin man bàkkat laa maanaam dama bëgg xiin moom. xiinu Baay Faal yi nii hmm. xam nga ku dikk jàng ba pare ñun la luy bind sa thèse nga ni ci xiin yi te moo ne bind naa ko first sight ci laa ni nërëm at first sight day wax love at first sight mooy ku li ah, the light xol bi daal di doon këram ñu ñëw fii euh, nun ay Baye Fall lan man bi may wàcc université xam nga gars yi dañu di boobu université d' excellence la melugul nii bu ma fekkee ay fekkoon ñu bëri ay super sans la daan sol takk lonet di laak ay tubaab man ma ni cëpp indi samay xii nag man moom màggatu gu ma demaguma fi ay at yoo xam ne ñu ne sama génération dee nañ ñu may gis ñu may seetaan mosuma fee def examen boo xam ne damay dikk di ko defaat. man man xaw ma lu dul Baye Fall man ay football ak yi